asalaamaaleykum gars yi avocat Sonko la maa leen nuyu di leen ziar ngeen ñaanal jàmm di ko ñaanal sa bopp yi. Kaaw Bamba gis ngeen ko. maintenant am 29 mu yokk ko ba 108 quartiers. tey Bamba Fall laay waxtaanee Bamba Fall maire Medina Bamba Fall borom allo monsieur ministre woo naa sëni Medina yëpp maa ngi attaqué Sonko. gars yi Bamba Fall dañ ko épinglé maanaam rapport yi dafa génn épinglé Bamba Fall leen épinglé Bamba Fall nag moo doy waar ndaxte Médina 29 quartier la am Médina 29 quartier la am Bamba pour mën a sàcc dafay yóbbu Médina ci 108 quartier chef de quartier bu ne maanaam dañ laa war a fay cinquante mille par weer loolu at mi day nekk six cent mille Bamba faal ci lim yóbbu maire yi maanaam chaque année mi ngi daan fay maire yi 17 millions et quelques yaakaar naa fi mu toll nii mi ngi ci soixante dix soixante dix million e quelques foofu la ko yóbbu Bamba téye kii <laughs> ah man de waa kër Macky Sall est Sall fii la jàppoon Bamba Fall ndax rapport du rapport bu bees rapport jamonoy Macky Sall la xam man yàgg na maa wax Macky Sall dafa santaas Bamba mais Bamba Fall li mu nekkee nii teyu ko munoo jógee ci ay élection nga gagné ko am avenir politique mu leer la ne boo demee ci Macky Sall dee politiquement nga dem dee ji politiquement si wu. musuma gëm ne Bamba dafa dem ci Macky Sall nii rek pour sincérité pour nangam damaa gëm ne Macky Sall daf ko topp ba jàpp ko ci dara woo ko ba mu ñëw woon ko ko ne ko kaso wala nga ñëw Bamba Fall préféré ñëw. man loolu laa gëm te moom laa mas a gëm yàlla xam na ne barke alxuraan dama koo yàgg a wax ne Macky Sall damaa gëm ne dafa santaas Bamba Fall mais Bamba lii mu nekkee du fam moo tax liggéey génn nii c'est Macky Sall damaa yàgg wax Macky président buy santeloo la président santeur la day santeloo ay nit pour ñu def li mu bëgg Bamba yow tamit loolu noo ko ma ne jóge ci vingt neuf ba cent huit mais c'est trop xanaa Medina kon juróomi kër yu nekk ab quartier la man Medina miin naa ko trop fa laa doon daanaka mën naa ne fa laa dëkkoon daanaka mën naa ne fa dëkkoon ndax fi ma dëkkoon nag Medina moos deux minutes la Gueule Tapée laa dëkk Gueule Tapée ak Medina pont bee leen séparé pont leen séparé kon xam naa Medina koñu Bamba Fall boobu koñ bu ma miin la ndax sama papa fa la njëkkoon am place mais nag Bamba nag c'est Bamba. bamba wéere nga bamba dangaa dékku ne oh bamba <laughs> Medina moo bari quartier nag